te ni ngi fi woon tey euh, Mbacke doon seet euh, ak tamit euh, le bureau de mise à niveau bi jiite bi madame jiite ànd tamit tamit le le représentant du gouverneur du sous-préfet le préfet de la zone donc di am mbégte ñëw fii si unité bi ñuy woowee Soxna Mariama sunu sœur madame jiite mu nekk loo xam ne unité industrielle la bi toppatoo wàllum produits locaux. ak revalorisation également des produits à base de céréales locales comme dugub maïs ak moringa ak lépp loo xam ne tey mu ngi jugee si suuf si donc unité bi mel ni suñ ñëwee tey donc xool propos tamit euh, programme bu bisa bu bureau de mise à niveau am ak euh, le projet Proval euh, mu nekk projet boo xam ne dafay jàppale lépp entreprise yu yëngatu si wàllum transformation de des produits agricoles agricoles mi Proval mu nekk programme boo xam ne ministère de l' agriculture moo am Euh, tey ñëw nañ xool un peu fu mu si toll si liggéey bi si unité industrielle bi gis nañ fi euh, une dame très engagée muy madame Mbacké ak tamit un personnel qualifié ak tamit des machine ak tamit euh, unité de production boo xam ne tey suñ ko kone di jàppale gëm nañ tey lu ñu bugg si zone bi suñ si amee ñaaw la ñett ñu mel ni moom donc suñu objectif donc atteindre en termes d' accompagnement des petites et moyennes industries qui évoluent dans le domaine agricole. ñëpp gis nañ tey le président Bassirou Diomaye Diakhar fay donc euh, yéene ak engagement bu mu am euh, si bépp entreprise ak entreprise yu ndaw yi di évoluer si wàllum euh, transformation produit agricole et horticole donc si loolu jot ndigal tamit premier ministre fu fépp fu nu gis ay entreprise yu ndaw comme tey bi ñu fi fekk bu soxna Mariama de madame Mbacké ñun lu ñu war mooy en tant que secrétaire d'État ñun dénk wàllum développement de ces unités ñëw xool càmbar jàppale aussi unité industrielle pour mun a dëgër ñëpp xam nañ ci statistiques yi bu nga ko xoolee euh, fukk ak fukk ak fukk ak benn juróom soo jëlee téeméer entreprise fukk ak benn yëpp lu ko ay PME yu ndaw leen donc si loolu PME yi am na wool bu ñu juré pour mën a am autosuffisance alimentaire de manière générale donc loolu maa ngi profité di annoncer benn concept ak projet le mois du consommateur local bi ñuy organiser 22 octobre bi di ñëw ba le 2 novembre mu nekk ndaje boo xam ne yëpp ci Sénégal noo ko war a bokk participer toutes les régions seront représentées par des unités comme ñu fi fekk bu madame Mbacké ñu ñëw wane li ñu def ci seen production seen euh, produit yi ñu def wane aussi Sénégal suñu kon na jàpp PME ak PME yi rek ñu nun bëgg en terme autosuffisance euh, alimentaire de manière générale mën nañ ko am à travers les entreprises comme comme ñu fi fekk tey mu nekk les PME les PME euh, pour nu mën a am autosuffisance boobu donc loolu ñu ngi ci liggéey te am nañ si yaakaar à travers nos partenaires comme tey ñu fi àndal bureau de mise à niveau ak tamit comme projet bi ñu fi fekk euh, Proval mu nekk projet boo xam ne ministère de l' agriculture moo ko lancé woon pour jàppale tamit PME yi nekk si domaine agricole pour mun leen renforcer en terme de capacitation en terme de logistique pour mun a am doole pour mun a créer de la production de la valeur ajoutée pour mun a am autosuffisance alimentaire à long terme. sentiment de satisfaction ndax euh, kuy liggéey ku nekk. boo toogee ba nga xam ne yàlla dogal na ministre la république jóg ànd ak délégation bu am solo ci liggéey rek da ngay sant yàlla ànd ko ak bureau mise à niveau bi nga xam ne suñ nee mise à niveau jeexal na wax mhm. ndax ñun am nañ fu ñu toll fu nga xam ne bureau mise à niveau dafa dugal loxoom bu baax ci sans par parloo ci ay logique boo xam ne yàlla dogal na fi mu nekk bi ministre bi ñëwee dégg ngeen ko ci waxam kon satisfaction boobu mu am bu ko rawul am nañ ko ñun di leen ñaanal yàlla gouvernement bi mu bokk yàlla dimbale président de la république. Mhm. jàppale ko ci li nga xam ne moom la bëgg ci politique de développement ndax ñun actrice de développement lañ ci développement bi la ñuy yëngatu jubóole ko ak premier ministre am ak gouvernement bi yëpp ñi nga xam ne ñu ngi ànd ngir jubbanti jubal mhm. joyanti.